amul lu gën a ñàkk maanaa discours bu aji Sarr bile kàddu gi nag boo koy jàngat ci fond bi ak ci forme bi li ngay gis moo di ab film bu ñu programmé ba noppi te actrice bi ko war a joué mënulu rôle ma aji Sarr mu toog muuru di yërëmtalu ak ay hésitation yu bare loolu ba tax muy wax di weddi boppam ci benn jotaay bi bi ci njëkk Adji Sarr moo fi tuumaalu Ousmane Sonko ni ñoom ñaar jot nañu am lu ñu sekk waaye benn yoon la mus gis Ousmane Sonko moo di keroog bi mu koy dalal ci salon de massage bi le 2 février bi nga xam ni na nañu ci la viol am. te bu ñu sukkandikoo ci plainte bi metre sàmba soo teg ci ndoddu maître Dior Diagne moom fësal na ni ab ndaje jot na am dox ci seen diggante fukki fan ak juróom laata viole bi di am. ci faux live bu leeral TV fësal nag. aji Sarr di xamle ni bés bu njëkk bi muy door a gis Ousmane Sonko mooy keroog bi mu jiital Pastef di door a ñëw ci salon de massage bi te moom ndaw si sax xamle na ni keroog xàmme na Ousmane Sonko waaye waxu ko dara. moom aji Sarr nag boo déggee ay kàddoom li ngay jàpp rek moo di ab ndaw boo xamante ni dañu koy conditionné di ko tegtal di ko digtal itamit lan la war a wax ak fan la war a dem di maanaam ab otage la ci nguur bu cuune boo xamante ni da koy utiliser ngir mën a faagaagal benn adversaire politique par conséquent aji Sarr elle n'est absolument pas libre waaye nag du aji saar dong la ñu war a joxoñ baaraamu tuuma ki jaaxal askan wi kay te kenn xamul fan la far ak fan la féete moo di mettre El Hadj bi nga xam ni dafa yëkkati xew mi yenu ko loolu takk ci ripp ba noppi am sañ sañul taxaw di wax journaliste ya fa nekkoon ana yenn question la ñu war a laaj ndaw si wala ana naka lañ ko war a jébbalee seeni laaj lii yëpp nag di dëggal seen yëpp askan wi ak seen déclaration bu cuune bi nga xamante ni déclaration bu fias Elias di dëggal itamit seen yàpp sénégalais yi li ñu gën a jaaxal yi tamit moo di Ousmane sonkoo keroog bi ñu koy jox liberté sous contrôle judiciaire moo di dafa bokkoon ci conditions yi moom Ousmane Sonko warul wax ci fond dossier bi ci place publique bi maanaam ci pénc mi kon nag daal Adji Sarr dong moo war a wax ci dossier bi moom daal moo war a toog daal di koy fësal ci pénc mi te dara du ko ci fekk waaye mbokk yi li ci gën a reetaan lu moo di moom ndaw si dafay mel ni kuy def bataille psychologique wax ni ki rek bu fekkee ni Ousmane Sonko bëgg na moom ndaw si mu rocci plainte bi faaw rek Ousmane Sonko génn jàkkaarloog askan wi jël loxoom teg ko ci kaamilu alxuraan waat ni moog ndaw si mësuñoo sekk dara loolu nag suñu mbokk mbër yi daañu ko miin ci wàllu bataille psychologique ngir waaxu ki nga xam ni moom nga war a jonganteel bu ko defee rek nga mun koo nasaxal mu nekkoon seen chronique coup de gueule ñu leen di ñaan nag ngeen abonné ci chaine bi di Equivox TV ngir mun a jot le meilleur des programmes